teg ci biir lan la. waaw daan nañ ma teg ci biir waaw dafay la ñu wax nee dañ ma euh, suspendre six mois mais trois mois yi du ma bëre yeneen trois mois yi suuf si la. lutte traditionnelle wala da nga koy bàyyi suma ay kilifa. ñoom ñoo koy gérer mooy waxtaan ak ñoom parce lii tamit wax dëgg yàlla lii dafa làmb ci la bokk mm-hmm. ay duñu ay dof ay mm-hmm. ci làmb ñoom ñooy ñooy tey bu bu CNG jël ay matuwaay ci mbëri rek làmb xëy na yàqu. ndax stade bu toll ni tey ak ñun bëri bu ñu génnee ñu gauche à droite suñu ay mbokk ay kilifa bàyyi seen yëpp topp suñu ay ginnaaw xam nga. Mm. donc ay comportement na war na mu a mun rafet muy comportement bi ak ci lépp daal mm. a mun rafet bi la. Mm. bi mooy siffler kenn du la atte kenn du la dimbali kenn du la téye tànk kenn du la téye loxo donc lu mun demee rek. nañ liggéeyante foofu affaire yi bàyyi yenn yenn détails quoi daal ko quoi trois mois sursis ak trois mois ferme yoo xam ne doo bëri li traditionnel moom doo ci bëri. waaw mais boo bindee ñaan mën na laa baal. ah loolu la ma koy sama ginnaaw ay kilifa la vraiment parce que équilibre laa nekk xam nga di nuyu suñu bopp Abass bu baax suñu bopp Tafa Gueye xam nga ak sumay manager Ibrahima Mbaye ak waa équipe Fass yëpp. xam nga nuyu suma entraîneur ba daal. vraiment loolu moom man daal maa daal vraiment. maa ngi daal. yaa ngi ñaan da ngay continuer. non non foog ñaan muy man muy suma muy Ngel Joon parce que dee dee dee man wax dëgg yàlla yéenoo benn mbër jàmm yéenoo yéenoo benn mbër lu jàmm salaam. vraiment bu fekkee dañuy dañuy bëri tey man man kese mu ma yóbbu sama kër dara. vraiment tey Ngel Joon tamit bu toogee dèjà a ans xam nga un dara loolu day metti man yërëm naa sama bopp trop mais barke Serigne Touba moom laa gën a yërëm billaay parce que nga toog deux ans amee blessure dafoo dara saa waaye nga bëgg ajaar la ci ay yoo xam ne ni nga nekk soutien de mm. sa famille bi yaakaar ci xam moo tax ñun foo ñu xool suñu bopp quoi. jot bu ngeen di tooyal seen xaftaan sax ngeen ànd seen xel xam ne vraiment dañu ñëw rek ku ci nekk day ñëw pour jël si wërsëgam ci làmb wërsëg boobu nag yàlla moo koy jox kenn ki mu ko jox mu jël keneen ki ñu muñ ñu bañ a defante ay xeex ak xuloo ak dóoranteeg yooyu nga xam ne mën naa ñàkk ci làmb. non man moom ku xam comme Serigne Ndiaye man dëgg ma ba ni ma waxee billaay dama am kersa pour génn maintenant dama am kersa pour jaaxal sumay nit parce que kenn xamuma ay coow moom ba ma koñ mu dëkk kenn xam ay coow kenn xam ay wax ay wax yu ñaaw ay wax non non xam hmm. ma su ma duggee damay ma ma jug ñibbi calmement ma ñëpp loolu ma xamee donc bu actu amee dama koy naqarlu billaay walaay dama bu baax bu démb doon tey billaay walaay taalaahi du ma sax bokk moom sax yoon ma su ma gëntoon ne su ma amee foofu damay am moom problème billaay walaay du ma am foofu ndax man du ma nit coow xaw ma coow dox ma ci yooyu mais nag xam rek lu war am day am ñun dañuy masaw bu baax di baalu ñëpp amateur bi àq parce que di ngeen rafetloo ko ñun tey ay gars yi dañuy bàyyi ci làmb parce que dug ngay dugg làmb tey ñu ah ne na làmb kon tey dina neex xam nga diw ñëw na làmb tey dina neex mais nañ saa suñu comportement daal suñu ñëpp daal saa suñu comportement ba xam ne ñu ñooy may ndek xaalis joxante cër joxante respect buñ duggee si géew mi nag non ku mun lekk si moom da nga lekk si moom quoi après bu jeexee jeex na. Père Ibra maa ngi lay nuyu bu baax li xale yi wax loo ci dégg léegi ak li nga dugg résultat yi nga xam ne jot ngeen ko jëlee ci biir CNG bi. waaw damay rafetlu li xale yi wax rek surtout lu Serigne njaay day wax. wax naa ne ko léegi ak ñoom booy fay ñëpp bi ñu taxawee. Hmm. naa ne da ngeen a bokk ndey bokk baay. kenn ku nekk yaay may sa morom taraanga ci biir géew bi. ak lu mu mën di demee rek ta làmb lu mu mitti mitti ak lu mu bari bari rek yéen yéen ko war a mën a defar. benn cinq minutes la rek wala benn dix minutes mu jeex ku ne dem am sa taranga ma bëggoon daal ñu rafetal soo mi du ko commencé xam ne daal ay xale lañu xaj na seen yaram mu ndaw day tàng léeg mais bu am na foo xam boo fa toll nag da indi na xel xam ne yow kilifa nga am nga loo bàyyi sa ginnaaw taranga nga bëgg yow say waajur xoolal taranga bu la ko yàlla mayee nga yow bu la ko mayee bu ëllëgee dina la may nag teg nañ leen ay daan ngel jonn xamal ne ne toog naa deux ans bëréewu ma ñu aj ko deux ans un mois un an sur un boo xam ne du ko bëre Serigne Ndiaye ñu aj six mois trois mois yi du bëre mais bi ñu ko waxee man it déclaré naa waxtaan naa ak ñoom xamal ñaa di ñaan njëgal daal ci xale yi waaw may may ñaan nag mm. a ah, dinaa def appel nag bind lettre ñaan mm. parce que Moussa dafa nekk ci combat dafa war a bëre le treize ba di ñëw bu mm. dëgg-dëgg ah te komba combat bëri doolu loolu day yàqal promoteur bi yàqal mbëri donc CNG nag rafetlu naa li ñuy def parce que làmb jana mi ngi bëgg a yàqu nag bu lii ñu teg seen i morom ay daan soo ëllëgee kenn ku ci nekk boo ñëw di nga xam ne bàyyi nga famille sa ginnaaw fekk si nga famille. parce que kenn ku ciy ay kilifa ñooy bàyyi seen liggéey bàyyi seen njaboot ñëw di la seetaan si waaw kooku nag da nga jox cër. ki xam ne sa baay la sa nijaay la sa maam la sa rakk la sa lépp la bàyyi itam yëpp solo rafet ñëw di la seetaan si àtt na nga bàkku sa mu gën a dépassé may la ko kooku da nga ko war di ko sóoraale. li ñu xamoon nag bu njëkk waaye man day laa wax man dama par personnel Ibrahima bay bu faas di ménager ànd naa tey ànd naa ci ëllëg bu ñu bëggee làmbu taaru yi daan kenn du ko teggi ay na. waaw moom bëgg na sopp naa lii nag waaye nag du tey ah ñoom ñooñu seen kilifa nag ñu ngi ñaan daal njëgal ñu wàññi daan yi ah wala ñu jéggal leen bu bu ëllëgee keneen du ko def. jéggal rek ndax yet bu njëkk bi moom daa war a dal ah, dal na moom gannaaw dal na na na bu baax a baax a baax a baax waaw buñ ko gisee nag lii nag boo liggéey kenn ku ci nekk boo demee ca làmb ji waaye waaye bu am man nga kañu kañ sa bopp tagg say maam def loola neex bu fu la jotee nga def fu la loola yàlla may nga yóbbu mais nag kantaan saaka sa morom euh, te waajur dafa foor wala nga bett sa morom sotti ko saafara li ma dégg léegi bureau CNG di ko wax képp kuy mbër kuy takk ngeen bëri dóore ba Saint-Pétien booy ba nga booy ba nga teg ko ci suuf. Mm-hmm. Hmm. jërëjëf Père jërëjëf kontaan naa.